ñoo ngi fi ak Thioro Mar Ndiaye Thioro maa ngi lay fay. Thioro gis nañ la ci kaan bi nga def lu nice toujours dugal ambiance yaag Malathion ñoom nan nga niñ koy dundee rek saa yu équipe nationale moo xam football moo xam basket moo xam volley euh, moo xam beach soccer génn bi maintenant football euh, euh, c'est le sport roi bokkul engouement ak euh, yeneen discipline yi mais n'empêche ñun fu doomu Sénégal dem rek porte drapeau wu Sénégal dañu koy dañu koy dañu koy jàppale pousse ko parce que loolu mooy suñu cër. ni nga ko doon dundee ak série chronique amoon ngeen yaakaar yàlla sûr amoon nañ yaakaar parce que depuis 2002 euh, demuñu euh, finale Coupe d'Afrique des Nations euh, donc buñ ci demee ren c'est franchement quelque chose de ñu gis engouement bi ak socialement parlant ni nit yi jàppante woon donc on se sentait franchement très fiers te jusque là de cette équipe là que au départ on était 24 là on arrive deuxième ça veut dire franchement que xale yi demuñu fa ñu demoon qu'il devait faire Dieu en a décidé euh, autrement euh, dañuy jàngaat ci échec yi euh, toog xoolaat ce qu'il faut parce que c'est pas parce que ñu ngi gagné que tout va bien non il y a des déchets il y a des lacunes et ces lacunes là il faut essayer ñu def suñu kéem kattan ba dindi euh, ngir ëllëg yeneen ndam nekk ci suñu kanam gëm nañu équipe bi ñu am ils sont jeunes ils seront là en 2021 ñaanal nañ leen ko en 2023 en 2025 inchallah te xam naa ni ko yooyu ay échéances la yoo xamante ni euh, ça nous réserve énormément de bonnes surprises